élection locale yi mu ngi ñëw mais bërki démb gis nga kenn ci politiciens yi wala ñenn ñi ci politiciens yi président Ousmane Sonko ba mu demee Ziguinchor gis nga li ko fa jot a arrivé ñu kar ay njoñam gaañ leen duma leen deret ju bari tuuru fa en tant que ñaankat loolu boo ko gisee nan la lay def sacrifice la wala nan nga ko mën a gisee. waaw bi maanaam euh, mbirum politique dafa doy politique dafa doy ba tey ji yow mi ci wax wala yow muy nekk ci seen biir te xamoo rek mën nga cee am gàllankoor. Mhm. parce que dafa doy waar parce que moom may jiite moom mu ngi topp moom day defar boppam. Mhm. ba yow mi si gën a xamante ne amoo bopp lépp lu ñu ko nar a def moom wala lépp lu ñu jëm ci moom ci yow lay këpp yow mi nga xamante ni yow yaa gën a néew bopp. Mhm. nitu neen nga. parce que ñoom dañuy pare seen bopp nekkuñ ay nit ñoo xamante ni si bii dañuy jóg nii rek Mm-hmm. dañoo pare ci lépp te politique daf leen di jaral koo ci gis muy lemm lemm ka lewatal li ko yoonam jaral maari day taale mm. lu mu laaj na dañ koy def koo ci gis muy lemm lemm ka nii nii nii lu li muy def <laughs> politique dafa doy waar. kon da bëgg a wax njooñ yi ci nekk ñëpp mystiquement dañoo pare ñoom ñooñu ñëpp. dégg lu ma la moom Ousmane Sonko mi. Mm. dina am problème bu rëy. te problème boobu ki ko koy yëpp benn maara la maara boo xam ne mu ngi ci biiram daf ko boole ci boppam ci liggéeyam maara bu ñëpp ràññee la nag kooku moo koy wor moo koy yàqal ci lu bari. maara bi da koo xam. ñoom si da boole ci boppam moom Ousmane Sonko. ba xam yow xam nga ko wala da xam naa xam naa bu baax day wax toujours ci presse bi. maara boobu. waaw ah, moom xam na boppam moom bu dégloo émission bi dina xam ñoom sama émission dañ koy déglu. yow noo def ba xam ni. Eh, lu bari lu lu garaaw dina dal Ousmane Sonko te maara boobu moo ko yóbbee. waaw xam bi maanaam ñaan dafa nekk loo xam lu day waar la. Mm-hmm. tey man ñaan amut ay yow laa faral wala kii laa faral de ñaan amul loolu. Mm-hmm. ñaan mi ngi surtout pouvoir ki ëpp xaalis ki ëpp lu muy génne pour jinne bi parce que foofu lu baax amu fa ku la ne lu baax amu fa wax lu la am lépp sacrifice la lu bon la. Mm-hmm. te jinne bi yow loo ko gën a jox bu gën a sawar ci say mbir. di gën a dox ci say activité tey ji moo tax sëriñ sëriñ bu ne la yow mën naa laa assuré yow kese da wax rek lu ko neex rek. Hmm. parce que keneen ku dul yow bu ñëwaatee tamit mu ne ko fay naa la temps fay naa la vingt millions wala tant de millions kii lay jël bàyyi la foofu ngoor amu fa foofu. Hmm. ngoor amu fa loolu yëpp doxu fa de. Hmm. foofu liggéey la daje bi ñu dajeeg ay njoñom gaañu gaañu yooyu tereet yi boo ko gisee en tant que sëriñ. loolu daal mooy li ma la wax rek yaa ngi dégg. Hmm. tey boo ànd ci nit da nga war a pare sa bopp yaa ngi dégg parce que ñoom dañuy pare seen bopp. mais sëñ bi ñëwee dañ leen a bett gaañ leen. lan lañ ci mën. Hmm. gis nga dafa am domaine boo xamante ni boo ci nekkee waroo xaar ñu lay bett toujours ma da nga war a pare. Hmm. yaa ngi dégg. gis nga sa domaine travail nit warula see bett. dëgg la dana am yo xamne nak nag ndog-ndogu suñu borom lay doon. mais ci anam ba muy ñëwé nak da ngay xamne li lii suñu borom la mais amna yo xamne bu ñëwé da ngay xamne carrément li ci yow la. dëgg la loolu du ki suñu borom ci yow la. Hmm. waaw. politicien bon na. waaw ah, politicien ah, amul politicien bu baax. amul politicien bu baax. fi ci réew amul sant yalla li ngay wax ëpp na dé ay déggu luma la wax man néna la man sant yalla lamay wax suma démé ba diko ragal wala ma ci baye xel diko hésiter ma tok sama kër. déggoo lu la amul ko bax déggoo lu ma la seen li leen ñor moy sen bop ak lañuy ñuy ñu jot ci leneen ñorul leen de amul len lu leen ñor lu sen bop ak lañuy ñuy pour mu leer. Hmm. waaw. mais dal xamna ni actuellement ni fi toll ni ci réew mi fi toll mu ngi mu ngi yëngu ta président Ousmane Sonko li nga wax ci sa biir wax amna ci ko xamanteni da koy ñaanal ku mak la. dina ko wor moom loolu moom yaa ko gis. déggoo lu ma la wax maa Sonko hmm. waxuma la ay dugg fii génn fii de lu leer laa la wax. Sëriñ dina ko wor yaa ngi dégg ànd ak adversaire moom usmaan Sonko ba pare mu yàqule. mu yàqule. moom ci boppam. kon Ousmane Sonko moom bu yeboo ñu njort ni mënatul yor réew mi. bañ a mën a yor réew mi yàqule dafa bari façon si anam yu ne nag. Ah, il ñuy dégg tamit xam nit ki tamit buy wax. Hmm. da ngay dégg am dégg. Mhm. bul jëlee sa xel mu gàtt rek. Mhm. imaginer wala nga analyser kii ban. waaw c'est <laughs> hmm. waaw. loolu la wax bi. wax bi maanaam nit ki doo rek si sa xam-xam bu gàtt. maanaam ci man sama xam-xam bu gàtt. Ah, waaw waaw nga yàgg nga maa attaqué attaqué waat ma rek. waaw xam naa ni dama laa bëgg daal sama xarit ga. waaw ah, euh. tout cas daal en daal njort nga ni président Ousmane Sonko. élection yi di ñëw mën naa am dara ci réew mi. déggoo la ma la sama waxu démb mooy sama waxu tey. Hmm. yaa ngi dégg su narut a nekk président 2024 damay ñëwaat fi ne leen du ko nekk mais pour le moment nii. Hmm. force laa la wax force. Hmm. force. man maa ko sañ maa ne la force day doon 2024 président. da nga koy liggéeyal. Ah, seexuñu ma ak moom dara. liggéeyaloo ku ko xam. ah bari na si bëri na. du ñoo xamante ni dañuy ñëw pour nga ñaanal président Ousmane Sonko. te gisante ak président ah, du jeex ñoo xam ne ñu ngi ba États-Unis ah, waaw loolu du jeex ñoo xam ne mooy dañuy yëkkati seen xaalis rek di ma jox ñu ne ma dee ko yokkal ñaan si noonu kese mais moom maa moom sequ dara xaw ma ko sax